asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi lisuwaat nañ di leen nuyu di leen siyaare di ci jiital cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke ñaan sunu borom may ko gudd fan ak wér waaye tey li leen bëgg a indil mbokk yi day xasida goo xam ne amaana sax euh, xasida goo ñu bari ñu sama classe gi miinuñ ko waaye seen Tuubaa moo ko bindoon jéem ko ci jàmbaar yooyu nga xam ne ñoo xare woon badar mm-hmm. te mu bind ko itam ci contexte boo xam ne maanaam ci jamono joo xam ne ku xam fa mu toll woon xam fu ajoon yitteem mhm. mooy bi ko ay noonam fexele ba mu jóge Touba mhm. dem Mbacké Baar yi coow li di jóg ba ay noonam jële ko fii di ko yóbbu mhm. yaakaar naa ci yoonu géej gi Sëñ Lamin ci la gisoon ne pas-pas bi gën a rëy mooy pas-pasu waa Badar mu teg pas-pasam ci ñoom bu bindoon ab xasaay tudde ko ahlu asma ahlu badrin kon yaakaar naa ne xasida googu Sëñ Lamin tey moom lañ bëgg a def ay tënk nit ñi ak sama classe gi gën a xam kon ci ba muy dem ci yoonu géej gi. muy euh, goo xam ne ni nga ko waxee euh, tur wi li ñu ko li mooy asmaaw ahlu badrin mm-hmm. mooy turi waa badar mm-hmm. kon jàmbaar yi nga xamante ni ñoo xeex badar ñoom la sëñ bi def seen tur ci xasida yi mm-hmm. waaye jublu gi mu ci jublu itam taw sol la ci jublu ndax ahlu badrin dañu ñu bari doole bari kàttan lool <coughs> am ci suñu borom cër yoo xamante ni benn cër féetoo ko kaw moo tax dangay gis sax ci biir xasida gi mu wax ci wajahal tawassuli bihim hibaada te tajur yi sahaada mhm. kon na nga def sama tawasul gii may tawasul ci seen barke mhm. nga nangul ma ko muy jaamu yàlla goo xamante ni dama ci bëgg dinaa ko am mhm. muy xasida goo xam ni sëñ bi ni mu ko tuddee rek asma ahlu badri mooy turi waa Badar kon ñoom la ci indi seen tur kenn ku ci nekk itam mu wax ay tawasul ay ñaan jëme ci ñoom tuddaale kenn ku ci nekk itam jagle yi nga xamante ne am na ko léeg-léeg it mu tudd kenn waxaale ci loo xamante ni dinañ xam ni xam gu ma xam siira islaam moo tax mu mën a indi ba noppi itam indi ci ay ñaan yu bari indi ci itam nag euh, taxawaayu xasidaam yii rawatina xasida gi ak lu ko suñu borom defal loo xamante ni gis nañu defal ko kenn. xasida gu ñuy taw sule la te bépp ñaan wala xasida gi lu mën faj dafa na ne amul nga fonki xasida ye ya mom ko war a fonke ndax su fekkee wilaya rek nga bëgg wilaya xasida gi moo koy joxe ci gaaw su fekkee da nga tawat wër muy sa jëm sedd guuy feebar bu la mëna dal bo jàngee xasida gi sama borom fajj ko wa wilaya mom boko ko mom moom tëqoo la gi ndimbal boko ko bëggee la gi al ijabatu ci lu nëbbu ak ci lu feñ boko ko bëggee la gi ba ci xam-xam ak jëfee xam-xam sax boo ko bëggee tëqaloo xasida gi xasida gi daal euh, bépp barab bu mu nekk sax barab boobu day naat nga xam ne tey buuru adduna yi sax ak a neexoon nu xam ko lépp lu ñuy wut xasida gi buñ ko jëloon rek daf ko fañ nekk loolu seen pajuk aaju la adduna ak alaxira waxuma la nag yow mi nga xam ne ab taalib Sëriñ Tuubaa nga waaye buuru adduna yi rek ak a neexoon nu xam ko fexe lijjanti xasida gi ba am ko rek doonte sax jànguñ ko am na ci lu mat daanaka fukki bayit wala fukki bayit ak ñaar wala juróom sax yoo xam ne yëpp sëñ bi da ciy wax taxawaayu euh, xalimaam mm-hmm. ak itam xaas yi nga xam ne suñu borom defal na ko ci xasida gi soo jëloon li tàmbalee ci euh, wasihat bi ko ñu ne xaama abdullahi xadima ak yonent bi mm-hmm. mu ñëw nag ci جلّي شواندي موم سلّي وسلّم على هلال هذي رفيع محمد والآية وسبي جميع وجه النظامي يا شكور أبدا يا خير محبوب بشكر هنيدا نعم سجى برام مدف ما نام خسدي من مويم في موي گن گلو ني سانت با فاو فو سوني بروم الناس من يجود بلا حتا يا خوتا لنا وينسي عبد الرو يا خوتا نينا موي وي وو خامتاني tab gi ak rafet gi ak may yi dina gàcceel wurusu yaaxóot dina fàttaloo itam wurusu duru bi nga xamante ni ay xeeti jamaala ak per yi rafet nee na taarub sama xasida yi ak wow wowi na ko gàtteel wajhalhu muxniyan hanil murabbi wal tatwili seyri bihi yaa rabbi na nga ko def mu doy sax wulis seexu murab bi boo xamante ni muy mën a yaree nit ba yeggale ko ci yàlla moom moo la dégg mu ne yu sulu xat yi bëgg tarbiya wala tarxiya dem ci suñu borom wala loo bëgg rek nee sama xasida yi mën na dafaa yóbbu nee na na nga ko mu doon taxawaay boobu te doy ko te itam nag nga gaawal wala tatwi yi séeri bi ñaara bi dox bi may dox jëm suñu borom su fekkoon euh, doxu euh, at la bu nit ñuy dox naa koy dox ci saa moo tax si ñëpp laat ne dafay fekk àddina bu dee juróom benn juróom-ñetti fan am na juróom-benn fan mu soog a ñëw waaye de ñu xëyoon ci suba yéen doo dox fanaanee dox noppaluñu benn saa amuñu lu dul agsi ci dëkk ba fekkoon ko kon loolu wala tatwin yi sëy bi yaa rabbi wajjalu kal jihaadi wa sulooki warudu bi lii jumatul mulooki tey jii jihaad fi mu toll ci jaamu yàlla ak sóobu jëm ci yoonu yàlla suñu borom nee na nag ma defal sama xasida taxaw taxawaay yooyu te itam buur yëpp yi nga xam ne dañuy ay borom doole nag ma leen ci nootal wajaxalu kala hajj wakal jiwaari war na ji nii bihi min al ko def mu mel aj màkk ak dëkk ak bi sallallahu alayhi wa sallam te nga fegal ma lépp loo xamante ni yàlla wajalu junnatan xanil aw jaali waxtal xayaati wala da ajaali mu doon loo xam ne pakk lay doon di dox sama digganteeg lépp loo xamante ni lu lu lu la ci waxtu dund ak waxtu wuyu suñu borom wal tak fi nii bii asa seytaani hindaxtilaa bi wada awtaani nag ma ci fegal ayu seytaani ci waxtu yi nga xamante ni mooy dox fa ma barab ak fu ma jëm wajal daafihal bala wal xumma dunya wa oxra an jamihil umma ko def muy loo xam ne day fekk balaa yëpp di fekk mboolem loo xamante ni njàqare la àddina ak alaaxira ci mboolem umma yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis kon xasida yi murid yi ko jàng waaye jullit bu xam te bëgg lu baax di ko jàng ndax sëñ bi dugg na ci biir wajalhu yaara bi bu busharatan li man xadd amanu wa aslamu kulla zaman def ko muy mbégteem képp koo xam ne gëm na yàlla suñu borom wéetal ko di ab jullit wajalhu yaa karimu xayra zikri fii abadin lii waxee suñu kon lii euh, lu gudd gudd loo xamante ni wone rek lenn ci euh, ni suñu borom def xasidaam yi ak fi nga xamante ne fa la ko suñu borom yëggale te mu ñaanee ko ci asmaa bu bëri li tax sëriñ bi taalif ko nag du leen lu rut jàppale gi ñu ko doon jàppale ci tukki bi ndax bu ngeen xoolee mi ngi ko tàmbali woon keroog bi mu bay ko ci gaaw ba Mbàkke Baari mi daari yi turan bi mbakke Baari bi isni xaalixil baraayal baari gaaw boobu mu demoon ca jéewal ba mu fa yendoo fanaan fa ba mu jullee suba ca xëy ga ci la dem kokki nak kokki gogu mu yandu fa la commencé nos asma'u ahli badirin. foofu mu yegg ci kokki fa la commencé bam fa yendo asma'u ahli badirin. dañ ko dar kenn ku nek nako man may diw di domi diw di nangam ma taxone ci xare ba maa defoon kenn ku nek di wax sa tur ak jaloore ya nga don def waye nak seen jaloor yi mom du ko indi waye kenn ku nek dañ la tuddu ci bir xasit gi 313 yep ku ci dalé ci seen jitt moy sampayo bi di bi sallallahu alayhi wasallam ak ki nga xam ne mooy abil yasar moom mujjee tëjee ñoom ñëpp kenn ku nekk saa su nekk rek day ñaanal kooku ngërëm waaye moom lam bëgg moom sëñ Tuubaa di ko ñaanale boroom da ko ñaanale ci biir kookee nga xam ne moom lay ñaanal ngërëm noonu la toppee xasida gi ba mu jeex kon xasida gi sëñ baa ngi tàmbalee woon dëkk bu ñëw wax kokki yendu gam fa yendu waaye nag bi mu yeggee fee nga xam ne mooy ndar nga xam ne weeru gàmm wooyu yëpp falo ko am ak fukki fan yi dess ci weeri safar danaka amna fa 38 sour man nga ne mom seigne touba amna fa ndar kon ndar ko wona fa yag motax bo boo ci Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana nee wa maqastu baqiyata safarin kullaha hasrata ayamin suma sahra rabial awali ila yawmi al axiri minhu wa kana yawmi al xamisi wa fi hasil mudati admamtu nasma asma'i ahli badrin wa sahahtuhu tashihan ولقيت كثيرا من أجل من أجلاء النار wa hawalayhi gis nga mu ne sëriñ bi sax na ci jëmmi ndar fukki fan yi mujj ci weeru safar daanaka ak weeru gàmm yëpp dafa sax sax googu mu sax nag ca ndar donte kokki la ko tàmbali bam fa yendoo nee ci la mottali nag jëm jëmmi xasida gi di asmaa ahlu badrin léegi nag mu pare nga xam ne fu ne defar na ko ba noppi amul lenn lu mu ciy daal di ko jox kilifa yi nekkoon ci ndar ñu xool ko di ko jàng mu dal xasid gu neex kon dañoo ñëwoon ngir lan ànd ak moom yàlla moo leen boole sëriñ bi ngir ñi ànd ak moom dem ci tukki ndax rafiqi wal mustafa nabi wa ashabuhu fil barhina aduru def naa ne kuy jàng kaseti wala ngay déglu kaseti suñu blaat da nga dégg jaayante googu mu doon jaayante yunus sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko ak waa ahlu badar loolu moo taxoon ñi dar ko ci yoon yi dafa ne buñ xoolee sax ni moom xasida yi mu ci taalif bëri na yoo xam ne as ahlu badrin rekk ci lay wax di ñaan ci seen barke wala li ko yàlla defal defalee ko ci barke bu ahlu badar loolu itam may la yoo xam ne boo diggee ci biir xasida yi fànn xasida yoo xam ne bu yàgg la leen taalif am na ci yoo xam ne ci mujjëm la leen taalif am na yoo xam ne waaye cëpp ci géej gi la da gis ne dana waxee waxin wu mel noonu ne yàlla defal ma nangam ci barke bu ahlu badar yàlla may na ma nangam ci barke bu ahlu badar yàlla may na ma ma mel ni kenn koo xam ne dama teewe waxoon naa xare dar doon jihaat nañ ko doon jihaat basarani laahu bi anni waahidu ah, ah, ah. li ba badri ma ani jaahidu kon loolu lu ko yàlla bégalee la doonte fekk doon jotaay ba ca xare ba waaye loolu mbiram baatin la kon xasida gi sëñ bi tëng ko ci baxru rajas ni ko xalil ibnu ahmad alfarahi di tegalee muy safiyu diina ci juróom-ñaareeli baxru bi fii abu huril arjaasi baxrin yasahalu musutafailun mustafailun mustafilun kon ba tey loolu danañ ci déggee ne bëgg na ñu mokkal ko bëgg na ñu jàng ko moo tax itam mu tëgg ko ci baxru rajas kon tuuma googu daal bëgg naa mu dëñ kenn du jàng xasiida gii di asmaul badrin bëgg naa mu dëñ loolu waxoon boo koy jàng dalay may wilaaya te wilaaya moom la ñëpp di wut ngay jàng xasiida gi mu lay may wilaaya feebar boo mën a am mu tëla wutal ku la jàngal asmaul badrin boo ko mëntu jàng boo ko mën a jàngal sa bopp nag moo gën maa la wax lii ma la wax tey saa soo ko jàngee saaborom borom dindi feer ba mu boo koy jàng saa borom day raxas sa xol bam set wicc nga xam ne lenn luy feebaru xol du nekk ci sa xol yow waaw waaw saa ci boppam foo toll da lay dimbale waaye lii ñuy tuddee xam-xam sax boo ko bëggee ma ne la mbóotam xam-xam mi ngi ci biir xasida gi lépp lu la jafe wax naa la ne lu mel ni nga bëggoon a joñ dara mënoo koo joñ muy aw xay wala nga bëggoon ñoddi ay yiw muy ñaari kayfiyaat yépp lum ci mëna doon rek loo ci bëggoon a def rek te nga bëgg ko rek moo xam nga bëgg a joñ loo ragal wala nga bëgg ñoddi loo bëgg maa la wax jàngal rek boo ko sama borom def ko kenn du tawasul kenn du jàng xasida gi kenn tawasul seen daraja lu dul gis nga la nga tawasul ci seen daraja waaye su fekkee dañ naan la xasida gi tey doo ko jàng loolu waxi lan la ñi ne la doo ko jàng xoolal boobu tuuma te fu ne murid gu bari ñu bari bari bari bari lolo tax mënuñu jàng xasida gi di asma wax la ba diri kese kese moo ci buntu bi di len yakal wa saytaane mo xamna ni jekku na len kon xasida gu seigne touba bind dañ koy jang amul xasida gu seigne touba bind te duñ ko kon konoon kay jarutoon ñu ko ñu koy bind parce que xasida gi jàngalewul xam-xam waye ñaan la rek tawsul la moy ko am ay aaje dafa bëgg nga ñew ñaan ci ci dara jaay ñi mu limal la kenn par kenn kenn par kenn ak ni ñu jëfee teglante ni ñu lim mu ñëw limal la ko benn par benn kenn ku nekk nga xam ne tey boo ko jàngee saxaaba ya fa jaaroon ñëpp rawatina nag waa ahlu badar ñaanal nga leen ngërëmal suñu borom ñaanal nga leen jéggaluk suñu borom subhaanahu wa taala te saxaaba yi loolu rek moom lañ doon wut ba sun borom gërëm leen ñoom ñëpp laqa radiyallahu anil muminina ndax inna allaha stara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannatu yuqaatiluuna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wahdan alayhi haqqan fi tawrat wal injil wal qur'ana wa man awfa biha bihi min allahi fastabshiru bi bay'akum allati bay'tu bi wa saliku al ha biñ jaante ak sen borom joxo lip. ha nango de ci Anda and ak yunus sallallahu yalla momit fayé dalen ko kon Yau agn bangi non kon yow mi bokoy jang itam may muy ni nga noonu la lay xasida gi di joxe ngërëm ak suñu borom subhaanahu wa taala lu gën a kawe te ngërëmal yàlla rek ñu baax ñëpp moo leen teroon a nelaw fu ñu baax ñi aljana terewul leen woon a nelaw am ngërëmal yàlla rek ndax tomb bu jafe la moo tax ñu doon joxe ko seen bakkan yi ak seen alal ak seen lépp lu nu am ak seen njaboot ak seen lépp seen soxna ngir lan am ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala xasida gu ñuy taw sole la te bépp ñaan wala xasida gi lu mën faj dafa na ne amul Ah, waxoon naa la léegi ne ak neexoon buur bu falu buur ak a neexoon mu xam xasida gi jël ko yóbbu ko ci paleem ba buur bu falu laaw de wala koo xam ne dafa bëgg ak noteel am ñu am ñam bëgg not wala mu yëkkati balaa xasida gi mën naa yëkkati balaa lu mel ni Sénégal gii ñu nekk balaa bëri fi lool te yàlla nañ ci yàlla musal xasida gi mën noo mën na koo yëkkati waaw ah, xasida gi jàng gi ñu ko jàng mën na yëkkati balaa ba loolu nag du lenn lu dul dara jaay ñi fi tudd kese moo tollu noonu daara jaay ñi ngi ci tudd moo toll noon waaye du leneen kon ñoom waa ahlu badar seen daraja yemewut ak kenn fu ne saxaaba yi yëpp yëpp ahlu badar ci gën amut kenn koo xam ne ci saxaaba yi yemonte nag ñi teewoon waa ahlu badar moo tax gis nga yonent bi salaay salaam bu toogaan ci ab jotaay waa ahlu badar ñoo ko daan gën a jege même sax yàlla ci boppam moo bëggoon loolu yàlla yàlla moo bëggoon loolu ci boppam moom léegi-léegi nga gis koo xam ne fekkutoon ahlu badar gannaaw fatu màkk la tuub dugg ci lislaam wala njëkk fatu màkk waaye fekkul ahlu badar léegi nag yonent yi bu toogaan di waar saxaaba yi waa ahlu badar moom buñ ñëwee ña toogoon te teewuñu woon ahlu badar dañuy jog may ahlu badar ñu jege yonent bi salaay sam fu dem ba ci aljana sax ñoo koy gën a jege moom nga digg alquran yaa ayyuha lasina amanu isaa xiila lakum tafasxu fil majlisi fafsuxu yafsaxillahu lakum wa isaa xiila unsuso fansuso gis nga yéen ñi gëm bu ñu leen waxee ne may leen diw kat jox leen ko ma may ko waaye waxuñ leen ngeen jóg dem nag kon yaatal lu am la nit bo boo boo mënoo xam ne sax moo la gën waaye nag jox ko ma rek comme moo la mag rek bu ngeen toogee ci benn place seetal place bu gën a baax nga ne ko diw kaay toog nii waaye na ba dara gis nga yàllaa leen jox xorma yonent bi jox leen xorma ñu baax ñëpp jox leen xorma ba fu yonent bi ñoo koy sës ku fekkoon doon ahlu badar seen gannaaw ngay toog loolu kon yàlla ci boppam moo leen ko taggee yalla ci bopam mo wax ñeneen ñi teewutun ahlu badar na fu waa ahlu badar na cipp rek ci pegg yonent bi may leen leen yaatal leen ñu tok ay waxul leen ngeen jog dem kon di trois lepp lo bëgg ci xéetu loy sakku mo xam ci dafu ak jalbu la boo tawsule ci seen ya sa borom subhanahu wa taala la nangul say ñaan kon xasida gi serigne baa ko talifé ca jëmmi ndar muy wéru gam wam fa am waye tàmbaloon ko ci bisub dimanche ba dana bam xeye gawo baye ko mbake bari ba fanane jewal ba ba julli suba ba laxasu nag jëm kokki ko gogu mu yendu nak fala ko gaay fekk fofu lañ ko jakk dare sax ci jewal waye fofu la commencé nos le bedri kenn ku nek mu indi saw tour liko dalé ci yonente bi nga xamné moy sen rais waye nak dem ba ci abi yesar mi nga xamné mom la mujjé indi tabarakallah qasida gi nim mu day melni ni don misal day don ñent qasida ñent xasida amna ci boo xam wi sar la waaye ñet yëpp ay woy la amna bi ci njëkk ñi koy wax bismil ilahi qad badahtu rajia minhu taala an akuna najia ba yegg musaliyan ala nabi Muhammad, wa alihi wa sahbihi wal humadi lolu moy buntu bi njëkk ñaar fukki bayit la tolok xarafi bismillahir rahmanir rahim waaye tolok turu yalla wu ñuy wax ya wududu ndax buntu bu njëkk bi di bismi illaahi qad badaxtu raajiya minhu taala an akuna naajiya maanaam par xaraf lay jël ci bismillahi rahmaan rahim bi ba ba kii gi rahimi ga moom nga gis mu daanoo musalliyan ala nabi miim ak rahimi ga mooy musalliyan ala nabi muhammadin wa alihi wa sahbihi walhumadi gis nga kon bismillahi rahmaan bi waaye nag bismillahi rahmaan rahim ñaari buntu njëkk yëpp moom la ko tënkee am na beneen buntu bu ci topp ba tey muy bismi ilahi alqaribi walmujib musalliyan ala wasilati alhabib ba yegg min saati wasalli bi salaami ala nabi waqdi bihi marami boobu itam bismillahi rahmani ay xarafam lay jël di ko tënk di ko tënk mu toll si ñaar fukki biir ba tey tolloog xarafi bismillahi rahmani rahim soo si booleeg rahmaani nga xam ne ñenn ñi duñ koy kontaale waaye xarafi bismillahi rahmani fukk lañ ak juróom-ñeent waaye boo ci booleeg alif gu xëcc ci miim ak rahmaani gi day nekk ñaar fukki xaraf moom it kon ñaari buntu yu njëkk yëpp benn buntu bu ci nekk ñaar fukki bayit la ciy tëgg ñaar fukki bayit yooyu moo dëppook xarafi bismillahi rahmaani rahim waaye tolloog tur yàlla wu ñuy wax yaa wadoodu waaye am na beneen buntu boo xam ne fanweeri bayit la bu ci topp muy buntum ñetteel ba fanweeri bayit la boobu mu ngi ko tëkkee euh, mu ngi ko tënkee wajja euh, maanaam mun ko tënkee julli ci yonent bi salaay salaam waaw kay julli ci yonent bi salaay salaam moom la ko tënkee muhammadun maanaam wasalallaahu ala sayyidina muhammadin wasallim tasliman moom la tënkee jëmmi fanweeri bayit yooyu nga xam ne day jël waaw waaw ga saat ga laam ga yaaga ba keroog muy jeex mu nekk fanweeri bayit ak juróom muy 35 euh, jàpp lëxoo buy tekki ñeel na ko rek nga xam ne ñeel na ko moom yàlla julli yi may julli yëpp jëm ci yonent moo salaay salaam moo tàmbale wu joxtu wàccee ila ilahi musalliyan ala rasulillahi gis nga ala rasulillahi ba ajib wakun maxe wakun li abada wa salliyan alayhi wax fi ni leen ada loolu 35 bayt la boo ko xoolee lépp jàpp la rek waaw nga xam ne léppam day wane rek ci yàlla rek la jëm ak julli bi sallallahu alayhi wa sallam kon boobu mooy ñetteel bunt ba ñeenteel bi nag moom dañuy gis na wisar la waaw ñeenteel bi lépp moom wisar la lépp da koo def ci condition wisar te mooy bi mu ne bismillahi rahmaani rahim indi benn ay alquran bi nga xam ne dafa wàccoon ci ki nga xamne moy yunit yal Ibrahima inni wajhtu wajhiya li lasi fatara samawati wala ra anifa wa ana min musrikina ba daanoo ci fa xasida gi tàmbale moy wala qad nasarakum allah bi badrin wa antum asilatun fatqul tuqula la'allakum taskuruna boo xoolee loolu day nek quarante ci ay abiyat yo xamne 8 sar lako def waye mom 8 sar la rek ak julit yunit bi ak ñaan ngir tamhid la ngir lamuy muy dëgmali geneen qasida xasida ga tàmbali ci waaye fii xasida gi tàmbalee dëgg-dëgg nag nga xam ne fa lay tàmbalee commencé nag liggéey bi di bind xasida gi lii yëpp ma lay wax tamhid la nii rek ak ñaan yi muy ñaan ak la bëgg xasida gi fi mu tàmbalee dëgg-dëgg mooy wajjaxtu wàcc yi taiban li rabbi min bidain wa firiyati wa san bii foofu la xasida gi tàmbalee waaye buñ xoolee baatab wala xan nasarakumullahu bi badrin wa antum asilatun fa taqula laalakum taskuruna fu yàlla doon soññee jullit ñi ca ne ñun yàlla ñoo leen dimbali woon ci badar te boobu ñu néew ngeen kon nag sant leen yàlla ndax bi tartar yi métti ci uur yàlla da leen doon soññi ngir ñi fàttaliku ca badar lam leen defaloon te boobu ñu néew liñ woon dégg nga bu ñu xoolee wala xam nasarakumullahu bi badrin wa antum asilatun fa tuqulaa laal ko taskurona aay jooju sëñ bi da koo daggate xaraf par xaraf xaraf par xaraf waaw ak wala xam nasarakumu dañuy gis ne mooy wajjaxtu wàcc yi taa iban li rëb bii min bidaay wa firiyati wasan bi mooy mat laxul xasida gi waaw gi moo nekk noonu noonu la koy toppee nag balaa lakum taskuroo na muy nun gu mujj moom la wax ne naxaw ila itfa i noorikal mubiin fa kufahum wasaleen alal amin léegi loolu boo ko xoolee loolu mu tënk day day nekk cinquante abyaat cinquante abyaat noonu bu noppee ci lay commencé nag di julli yonent bi ñaanal ngërëm mboolem waa ahlu badar ba keroog xasida gi di jeex ñeenti bunt espace boo ko doon boo ko doon xool def na ko ñaari bunt yi benn bu ci nekk ñaar fukki bayit la yëpp bisimilah rahmaani la ko tënkee ay xarafam ay numérom moom la koy tënkee par xaraf ba mu jeex benn bi nag moom wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tasliman moom la ko tënkee ba mu jeex beneen ba ca topp nag moom wi solal moom muy 40 abyaat muy ñeenti bunt yooyu léegi nag ak jëmmi xasida gi ci boppam moom nga xam ne lii ma la wax moom ñeenti bunt yi tamhid la nii rek waaye xasida gi dëgg-dëgg mi ngi tàmbale wajaxtu wàcci taiban li rabbi min bidai wa fidyati wa san bi foofu la tàmbale léegi boo xoolee lépp lépp lépp lépp 674 way yéeg way yéeg lépp ak wisaar yi 674 ci ay abyaat lay nekk waaye boo xoolee fi mu tàmbale lu mel ni bi mu ne wajaxtu wàcci taiban li rabbi min bidai wa fidyati wa san bi nga xam ne foofu la xasida gi tàmbalee dëgg-dëgg ba fam yem yëpp boo ko xoolee 556 ci ay abyaat lay nekk 556 waaye boo ci boolee lépp muy tamhid bi yi mu tënkee bismillahi rahmaani rahim ñaari ñaar fukk yëpp ak 35 abyaat yi ak 41 wisar yi yëpp boo ko xoolee moo lay jox 674 waaye wëyi moom dëgg-dëgg mooy 556 waaye lépp boo ko boolee daal wisar yeeg nga xam ne bëy yeeg lépp da lay jox 674 ci ay abyaat 674 ci ay abyaat loolu itam kon doon. mbir yoo xam ne tabarkalla mbir yu yéeme la mbir yu xóot la waaye boo xoolee li ko tàmbalee lu mel ni fi mu tàmbalee xasidi gi te mooy bismillahi xat ba doxtu raja nga topp ko ba wala xan nasarakum laa batir wantu mu asilatun fa taxulaa laalakum taskurona nun goog dalay jox 166 jàpp mawaahibu laa ilaha illallah day jàpp bayt ak mawaahibu yi kon xasida la gu bëri ay asrar bëri ay anwaar dafa bari ay asrar muy ay mbot bari ay leer ngir nan ñi muy tuddu dañu gën ci mbindeef fi waye kon ni señ bi tek lanté lañuy ñew muy ni mu yi xasida gi nu yemi manam day jël haraf manam ñi bokku tur lay bolé haraf ñi bokku tur ñom lay bolé haraf lu melni ni ñi jox leen ci misal bim tambalé gi lata muy départ gannaaw bi mu jëlee mat loon xasida gi bi mu tàmbalee waccal bi ma baada maqbulatan tajru li shahada ya rabana salli ala muhammad wa alihi maa sihabil humri nga xamne ne loolu yëpp day julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mune wali hab bi ahli xarfi xamsa xarfi xamsa نفع كتابك waliksi waliksi framsa nga xam ne bu jëlee baatub xamsa ñi seen tur tàmbalee ci xam xamsa ñoom lay indi ñi seen tur tàmbalee ci xamsa moom lay indi na noonu bu jeexee itam day jëlaat weneen beneen araf lay jël ba tey tëggaat ko noonu lu mel ni bi mu moom sëriñ bi wahab liyal yow ma su bootal xadami bi ahli xarfi saa yi gis nga saa yi léegi ñi seen tur tàmbalee saa moom lay indi gis nga ni mu ko tëglant dafa rafet lu mel ni bi mu ne waltarde xan saabiti ibni aqrabi xam nga xarafu saala waltarde xan saabiti ibni saxlaba waltarde an saabiti ibni xaalidi waltarde an saabiti ibni amri yooyu nga koy toppee ba xasida gi yëpp noonu la ko def nga xam ne ñi seen tur ànd rek moom lay indi waaye du ne da leen toppalante nañ toppalante ca xare ba déedéet kenn ku nekk na seen tuur xam nga saaba yi dañoo bari ñu niroo tur waaye te bokkuñ nag léegi nag su ko defee ne tur yooyu la la bëgg a xamal ne diw mii moo nangam nii lañ koy laqabee nii lañ koy dàkkantalee ba nga man koo xam. xam na ne na def sama tawasul bii ci xasida yi suñu borom nangu ko mm-hmm. tawasul boobu nag ni mu koy defee lu yéeme la mooy ku muy tudd ci saxaaba yi dana jiital suñu borom gërëm mm-hmm. gërëm loolu lay jiital ba noppee nag am càkkutéefu lu muy sàkku ci yow mm-hmm. masalan tey su ne wasuux ridaa an abadan bi ax na si ak solami yi wan fi xam ne dana si nga xam ne tudd na ko wax mooy kan ñaan ci barkeem li nga xamante ne moom la bëgg suñu borom defal ko nga xam ne ku mu tudd ci ñoom rek tawasul na lenn loo xamante ni moom lay ñaanee ci seen ci seen tur loolu nag di firndeel ne suñu borom def na waxuma la sax seen tur waaye barkeb seenub lim rek day doon lim bu am solo boo xamante ni tey mooy tax su fekkee nit ki day am lu muy def di ko def sax ci limu ahlu badrin boobu dafay lim bu barkeel muy ñetti téeméer ak fukki gis nañu sëñ bi euh, bëggoon na ko lool daan na ko def ba bëgg gis sax ci ak njabootam ñoo xamante ne dañ ko ci roy wax nañ ne njaareem kër gu mag ñu koy natt wet yëpp carré la yoo xamante ni trois cent treize loolu kon ak nen <laughs> utal na fa it néeg boo xam ne wax ni Cheikh saa Diène la ko liggéeyloo woon ci limu toog yi noonu lay toll loolu yëpp kon di ay ay ay tegtal euh, sëñ Saliou Mbacke mës naa indi fii ci daara Hizbut Tarqiyyah lim boobu muy ñetti téeméer ak fukk ñett ci ay dongo yoo xamante ni bokk na ci li mu waxoon jiw nañu daara ji mooy ñaan barke noonu wàcc fii ci daara ji loolu di lu am solo sëñ bi nag euh, wasuxuri daa noonu ma ko indee daf ko tàmbalee ci fu yëf yi tàmbalee nga xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa la tàmbalee nga xam ne ba wax ci xasida gi dafa tàmbalee ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak tudd suñu borom yaa rabbana salli ala muhammadi wa alihi wa sahbihi wa nga xam ne kon tàmbali na tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci barkeem soog a ñëw nag ngërëm loolu nga xamante ne moom lay sàkku ci suñu borom mu joxal ko ko saxaaba yi mu tàmbalee ci ñeenti saxaaba yi xulafaa rachidun wal tarda an naayi bi siddiixi rafiix yi fii la xaalis yi tasdiix ñu gis ne kon ñaan a ngi ci xam-xam mi ngi ci siira ngi ci lépp ngi ci wal an wasirihi faaruuxi sayidna umar yi tafriix ñu ñaar wal an maamuni usmaana wasiru xufraanaka wal amaana moom sayidna mu ñëw foofu tagg ko wax wala si bi nuurayni wa bihi mu fi daarayni wal tarda ana waarisi ali ibn abi taalibin ali baabul xuróomi waalidi sibtay ni mooy bijaay ni mu ko indee kéemaane kéemaane fii kenn ku ci nekk ci saabu yi tudd na leen sidna abubakar wax na ni mooy ko dëggalool yonent bi saa sallam te ànd ak moom ci xuntu tudd sidna omar sidna omar fii wazir la koy wooye bi mu ñëw ci sidna usmaan mu woowee ko Maamoun Maamoun ku ne xam ne Seydina Abubakar naayib la ko wooyee mhm. te yaakaar naa keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ci tawat bay ñëwee moo nañ ko jiital mhm. kon loolu firnde na loolu mhm. Seydina Omar mu def ko wazir wazir ku ne xam ne ni mooy ministre wala muy koo xam ne borom cër la bu am kaddu ci ci ci ci maanaam yëf yi ak ci niñ koy doxalee te ku ne gis na Seydina Omar liggéey bi ko doon taxawal Seydina euh, moo wooyee ko Maamoun maa woon ku ne gis na ko na mu toppee woon yonent saa saa ba ku ne gis na ay gisam lañ doon sàkku ci moom ak lépp mu ne man daal ak lu mën a am bu ci sama bakkan di say dara jaralu ma wàcc ndigal li nga xam ne moom la ma sang bu baax bi digaloon mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mu wooye ko fi xam ne ne moom sëñ bi da koy tagg ci baabul xulóomi waaye bi si tey kon te yonent bi sallallahu alayhi na yonent yi ñun kenn duñu doon ci alal ak ay bagage waaye ci xigma ak xam-xam la ñu doon xam ne xam nañ nag moom neewoon na euh, maay dëkkub xam-xam waaye Seydina Ousmane mooy bunt kon boo gisee saxaaba yi la tàmbalee bi saxaaba yi jàllee nag mu soog a ñëw ci euh, turi saxaaba yi maanaam xalifa yi la tàmbalee xalifa yi la tàmbalee muy xulafaa raashidiin yi soog a ñëw ci turu saxaaba yi léegi xam nga euh, arafi abajada yi ci arab dafa am ñaari toftale dafa am toftale boo xamante ni ñun ñi féete sowu jant moo la ñuy toftale mooy alif ba jiim daal xëy waaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci penku ñoom dañuy alif ba ta sa boobu nag muy alif ba ta sa boobu sëñ bi moom la jël nga xam ne moo tax bi muy tàmbali mi ngi ko tàmbalee ci Hamza jeexale ko ci asxaabul kunaa tey jii euh, lu mel ni arafu Hamza su ko jëlee day tàmbali maanaam أه، في خامنتيني مانام فلا خاسيدي دوري أه، وليهب بأهل حرف حمزة نفع كتابك وليك شيف رمزة لأن ما يجنان سوني بورم قد دوت تنجرم شي نيغا خامنتيني سنتر موتامبلي حمزة فين كومي اللي مارك كتود حمزة لي كتورم تامبلي ألف لي نيغا خامي يوتا يوسف يكون داغا أم كوي سيتي أهلو بدري سودي تورم كاف لتامبلي wala boobu woon seet tey jii Abu Dujaana wala nga bëgg a xool Hamza ibn Abdul Muttalib wala nga bëgg a xool Muaz ibn Jabal wala nga bëgg xool Usman ibn Affan di nga xool yow ci tartib bi nga xam ne sëñ bi moom la def ni nga xamante ni nga ko ci gis léegi nag su xaraf boobu jàllee mu def ay diggante ay ñaan ci diggante bi soo ko jàll maanaam ci benn araf noonu la ko toppee ci xarafu baa tey jii soo jëloon lu mel nii xarfu baa li nga xamante ne maanaam moom la ciy ñaan da ciy ñaan ba pare ñëw ñaan ci tur wa suxri daaka li Bilal ibn Rabah wajhal mukuusi xayru birin wa rabaax nga xamante ni kon ci Bilal ibn Rabah boo ko dee xool yi nga xamante ni ci arafu baa ngay dem mhm. léegi noonu la koy toppee araf bu ci ne su ci ñaanee day tawasul suñu boroom ci barkeb ñi seen tur tàmbalee araf woowu ci nangam mhm. léegi mu am araf yoo xamante ni day mel nii euh, ni mu ñëwee maanaam euh, tur yi ci ñëw bariwul mhm. nga gis lu mel ni tey ji soo jël arafu taa ak arafu za mooy li ñuy wax taa tànk ci wolof wala nga jël arafu arafu waaw wala arafu yaa léeg mu boole ci benn bayit tawasulu ñaari araf yi seen tur tàmbalee noonu te loolu soo ko xoolee di nga gis ne mooy tur yi ci gën néew masalan tey soo jëloon te lu mel ni xarafu taa xarafu waaw ak yaa daf ko boole wala yëhëb bi ëhli xarfil waawi wal yaayi kaw niya kulli raawi nee na ñi nga xamante ne seen tur dañoo tàmbale arafu waaw ak arafu yaa ci laa lay ñaanee lii boo xoolee arafu waaw ñetti tur la ci indi waaxida ak wadiha ak wadax bu fekkee arafu yaa la ñeent rek la te tey ji soo xooloon yeneen yi da gis ne tur yi mooy gën a bari soo ñëw ci ay Abdoulaye wala nga ñëw ci Omar wala nga ñëw ci yeneen da gis ne bariwaay bi day jéggi dayoo mu ñëw ci arafu taa arafu taa ak daa moom noonu la ci def wala yëhëb bi ahli harfi taa yi wobi lës mun faridun bi zaay du kéemaa nii nga gis ne sëñ bi arafu taa bi eh, talxata nga ci gis ak tufaylu te ñaari tufaylu la waaye tamit da koy xaajale tufaylu ibnu malik da koy indi indi tufaylu ibnu haris soo xoolee arafu za bi benn nit la ci turam tàmbalee za ci ahlu badri moo tax mu ne la wobi la si mun faridun bi za nga xam ne kooku maanaam da ko wéetal muy zuhayri moomu nga xamante ne sëñ bi indi na ko wa soxri daaka ila zuhayri wajal xayaati xayaatul xayri kon mooy zuhayri nii sëñ bi indi ko nga gis ne kon loolu bokk na ci li nga xamante ni maanaam feeñ na ci biir mbind mi nga xam ni kon arafu xaa arafu faa ak arafu xaaf nuroo nañu lu mel noonu boo ko xooloon ñaar nga gis faakiha ak farwa ci turu arafu arafu arafu arafu kaa bu dee xaaf lu mat ay juróom-ñaari tur waaye terewul gis ni ci boole boolee wa alihi wa sahbihi wa suqliya bi xaq alfi ahli faa fataxal awliya nee na ci daraje yi nga xamante ni seen tur faa la tàmbali maa ngi lay ñaan suñu borom nga defal ma fatuhu ubbi ak succès ak victoire triomphe bi nga xam ne moom nga defaloon wali yi waliya hëpp waliya bi ahli harfil xaafi xuwatahum wasanhum yaakaafi ñi nga xam ne seen tur xaaf la tàmbalee li ma ciy taw suloo mooy seen kattan nga ak seen ndimbal la yow suñu borom mi nga xamante ni yaay doy lu te ba ba ba ba ba ku la doyloo nga doy lépp maa ngi lay ñaan ci tur woowu di kaaf yi nga defal ma kattan ak ndimbal li nga xamante ni moom nga defaloon ñu seen tur tàmbalee ci arfu xaaf nga mhm. gis ne kon loolu bokk na ci ni mu toppee xasida léegi nag noonu la koy toppee maanaam ba xasida gi ba gi jeex ba mu mujjee ko ci li ñuy wax asahaabul kunaa xam nga arab yi dañ daan def ci seeni tur day am ñoo xam ne dañ leen di wooyee ci turu seen doom ndax mm-hmm. arab dañoo bëri mm-hmm. tey jii Seydina Seydina Omar léegi ñu wooye ko Abu Hafs mm-hmm. ndax dafa amoon doom yu tudd eh, soxna Hafs nga xam ne sax ci waa Yonent bi saa la bokkoon Seydina Abu Bakrin eh, li indi siiwul Abu Bakrin yi mooy soxna Aïcha mi nga xamante ni doomam la dañ joxoon ko Yonent bi saa sax ñu Abu Bakrin noonu nag la amee ci araab yi ñu baree baree baree bare ñoo xamante ni seen tur mi ngi tàmbalee maanaam abu nangam lañ daatee lu mel ne abu lubaaba abu lubaaba moom sax wax nañ ne moo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Seydina Ali ñoo doon toggoo gëléem bi ñu jógee Madinatu a jëm Badar abu lubaaba wala lu mel ne abu hubayda ñooñu ñëpp seen tur dafa tàmbalee ci abu nangam ñu dàkkantalee ci bàyyi diw ñooñu sëñ bi bi mu mujjee moom la tàmbalee ci waliye hëpp bi xaqi asahaabil kuna hindaka ya wahabu ma faaxal mu naa boo ci jëlee wasux ridaa an li abi lubaaba waxir waxirliyal xayra waliftax baaba wasux ridaa an li abi hubayda wa kuffahan ni xitla naa wa kayda gis na kenn ku ne ci ñoom nee na suñu borom fegal ma pexe aku aku aku rey waaye defal ma itam ak ubbiku ci bépp ci bépp fànn gis ne kon noonu la ko toppee kon ci arafu xalif ba ni nga xamante ni noonu la noonu la noonu la jeexe Abdoulaye itam noonu la ràññeeku ci biir te xam nga dafa bari ci kii Abdoulaye ibnu ibnu Jahsh Abdoulaye ibnu Maktu Abdoulaye ibnu Nangam ibnu yooyu noonu la koy teggalee ndax euh, ñu ci bari euh, walee suux an nangam wax Abdoulaye wax najli nangam comme bu ne najli Abbas muy Abdoulaye Abbas najli nangam muy muy muy muy muy tur diw mu indi nag lu mel ni tey jii euh, Abdoulaye ibnu Mas'ud foofu am na fa lu mat daanaka lu mat fukk ak ñeent ci Abdoulaye yoo xamante ni danañ lim wasux li Abdoulaye naj li Mas'ud nga xam ne kon Abdoulaye ibnu Mas'ud lay wax xayra ridan wa raqini yaa mahmoud noonu la koy toppee ku mu ne Abdoulaye rek naj li nangam wax dàkkantal ba nga xam ne maanaam moom lañ koy xamee ba ci lu mel ni Abdourahman ibnu Awf wala ku mel ni Abdoulaye ibnu Jaxs boo xoolee beneen tourniru wayen la jël nga xam ne day mel nii ràññee na ci sax xasatu mubassara ak daraja yi ñu am ndax Abdoulaye ibnu Jaxsi tur yi la tàmbali walib ni Jaxsin wax wax Abdoulaye nga xam ne kon Abdoulaye ibnu Jaxsi daa jublu suxiri daa wana jini min daa yi walib na xawfin haabidi rahmaani suxiri daa bil bisi wal amaani gis ni kenn ku nekk kon tudd na la wane sa wane sa daraja tawasulu ñaan dara ci ci ci sa barke ci suñu borom te wax na ni ñoom lu waay di ñaan ci seen barke noonu lay noonu lay sotti loolu itam euh, di ci tudd nit taggaale ko waxaale ci li nga xamante ne maanaam mooy melokaanam mm-hmm. loolu nag si Asan li ci yéeme mooy maanaam xam gi ndax sëñ mujj na ku gis ni muy doxaleek ñoom gis ne euh, maanaam du ñoo xam ne rek dangaa dox tey ba dajeek ñoom rek mm-hmm. wala jox la seen tur nga xool ko ci benn téere di ko bind kon ñu mu xam la xamu ràññeet la boo xamante ni tey loolu yegg na ci gis nga tey jii bu ci lansaar nekkee mu mën koo xam bu ci muhaajirin nekkee mu mën koo xam bu ci ñaar nekkee sax bokk ay tur mu mën leen ràññetle ba kenn ku ci ne li nga xamante ni mooy seen xam noonu nag loo koy toppee li tàmbalee ci xam Hamza ba keroog mu yegg ci li mu tuddee asxaabul kuna abu abu lubaaba abu hubayda abu nangam abu nangam bañ jeex ba nga xam ne daal kenn koo xamante ni tey jii xeex nga badar te te te bi indiwul sa amul ba noppi nak mu defé ko ci ben uslub méthode bo xamanteni tay ko xam nu turum tambali ci badrin rek soo ko doon ci asma ahlu badrin da ngay waaxu rek bëri turam a ngi nii <laughs> soo soxla Umayr mm-hmm. da ngay dem ba ci arafu mim mm-hmm. so soxlo Muwaas ibn Jabal da ngay dem ba ci arafu mim bo soxlo won sa ibn Abi Waqaas da ngay dem ba ci arafu sin bo soxlo won non la koy topé ku ci nek rek bu tuddé turum itam tawassul ci suñu borom ñaan xewul ak yiw yu bari boole ko nag ak euh, li nga xamante ni mooy julli ci bi tey jii boo xooloo arfu jiim wala yëhëb bi ahli harfi jiim salaamatan min fiitina jiim nga xam ne ku mu tudd rek tawasul na ci wet gi ñaan loo xamante ni moom moom ku mu asmaul badrin boo xoolee euh, ahlu badrin seen tur képp seen tour kese nit yi nit yi nit yi yàlla yi dañ koy def kaaraange mm-hmm. di ko aaroo mm-hmm. di ko fegoo wax nañ ni sax sëñ bi am na koo xamante ni ci laabir la ci jublu bi mu tolloo jeewal nee na ko nee na nañ jëfandikoo tur ahlu badrin mm. nee na boobu li may yéem mooy gisoo ne maanaam ñoom laa àndal ndax sëñ bi da ngay dégg mu la eh, ñi ma àndaloon mooy yonente bi salaa alxuraan mm-hmm. nga gis ne it eh, suñu boroom def na ci ñoom barke boo xamante ni tey bu fu àddina yem fu lislaam ne am fa drapeau wala mu am fa dara lu mu moom eh, bu ñu ko bëggee laal bu bu bu bu sax gi ci lislaam wéree moom di nga gis moo tax ñoom sëñ bi eh, bi mu tàmbalee liggéey bi dañoo ñëw sëñ bi it ngir cër boobee muy am ñu xam ne ci la bokk mooy ñoom dañ doon seere bokk gi nga xamante ni bokk na ko ci seen biir moo tax sëñ bi mosu leen mosu leen mosu leen def dara mm-hmm. da leen bàyyi rek ñu ne ci biir waaye bu ëllëgee suñ ko limee ci ahlu badrin kenn du ne kii nu mu def ba ñëw fii mm-hmm. ndax moo ne dem naa bokk ci ñoom mm-hmm. euh, ci loolu itam boo xoolee ci diwaan yi nga xamante ne ci la nekk mu ngi ci diwaan fulkul masuur mm-hmm. euh, diwaan boobu itam gis nañ ne sëñ Abdou bi mu koy jàngalu bandi yi asmaa ahlu badrin Euh, dafoo ber ci jàng gi kon yaakaar naa loolu wun na lu bari <laughs> ndax moo na ko boole ci biir waaye dafoo ber jàng ko boo xoolee sëñ Abdoulaye Touré daaj ji mu ko jàng bokkul ak daaj yooyu euh, daara Hizbut Tarqiyyah it euh, mës nañ ci liggéey lim bu takku nga xam ne yaakaar naa ni war naa mën day sun ñetti téeméer ak fukk ñett ci ci ci daara ji ndax daara ji dafa amoon imprimerie boo xam ne ci biir imprimerie bi ci daara ji ci liñ ko liggéeyee fan lañu ko defaree ay jaafure lépp mu indil ko suñ saar yi jox ko ko euh, ñu gis ne tur la woo euh, la goo xamante ni euh, diis na maanaam ci wàllu njàng bi <coughs> ndax sëñ bi xam nga ci géej gi wax na ni su ma bàyyiwul woon mbind bi may bind ci jihaad bi may jihaad ak noon yi dina mujj ñuy faatu ci lim boo xamante ni kenn du xam nu mu toll waaye nag lam yatuubu lil ilaahi xaafi waaw waaye nag mm. waaye nag waaye nag naa leen ñoom ñëpp ngir jëmmi yàlla suñu borom mi nga xamante ni moo dox sama digganteeg euh, ñu ci bari mm. looloo tax nag euh, mës nañu koo jàng benn yoon waaye ginnaaw gi day mel ni sëñ bi euh, sëñ Saliou Mbacke am na leeral yoo xamante ni daal def na ko ci ak laabiré yoo xamante ni xëy na moo tax ñu yemoon ci foofu <laughs> ci yoo ci wàllu njàng uh-huh, uh-huh. ñaare ba itam uh-huh. uh, jàng gi ñu ko daan jàng itam uh, dañ ko daan jàng ci événement yi bari waaye boo xoolee daanaka fi mu ne nii jàngatuñ ko loolu nag lañ ci xam ñoom ci seen digganteeg sëñ Tuubaa uh, mën naa doon loo xam ne du yomb moom ñu wax ko mooy laay ku ñu ko leeral doo ci mën jaar maanaam nañ la ko defee waaye xasida yi ni ko sëñ waxee yi ay tagg la yi ay am daax yi ay ak xasida gu ci ne ak àll ba mu toll bu mu koy bind fo fo fo mu jeexital ci. dafa bëgg nii tamit di ñoo xam xamna ni ko leen di wo mom boo wa dina wo ci roko mat mën ndax fu ñu fu ñu fu ñu wuyu si moom. yaakaar naa ni kenn du ko naatal. te suñu borom euh bo xolé kérok bi mi dimbali sahaba yi ci Badar. euh yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek. moo mënoon a gis malaayika yi ndax ndax jullit ñi leen doon ñi doon dimbali buñ leen gisoon duñ leen duñ tal duñ tal ah, duñ tal xeex mm-hmm. waaye mu seet lu dëppoog maanaam seen xel mu defe ko noonu nga gis nag sëñ bi moom euh, moo tax boo gisee yu ci bari ci biir def ci ñaan ci ay taw sunu yu bari nanga ma ci defal nangam nanga ma ci fegal nangam gis naa it koo xamante ni moo waxal boppam mbokk taalibe la boo xamante ne tey jii wàcc na liggéey sax ñu ngi ñaan suñu borom yokk ay leeram mu ne ma da doon tukki dem France moom wax ne ma suñu Abdou Khadir ci boppam moo ko wax ne ko ko ut waaye nag bu ko jàng na ko boole rek ci say ci say bagaas <laughs> xam naa loolu itam la tax mokk ko moo ko ci jublu moo tax bi gis ne daal gis naa ni euh, jàng ko jegle gi wala wala mu tegle kilifa it mës naa fekk ñu koy jàng jamono yi ñu koy répété. ñu mm-hmm. ko baax sëdu sëñ Tuubaa bi ñu mu ne xasida bii de fu ñu koy jàngee de yéefee du ñu am du ñu am jàng te ñoom boo xoolee ginnaaw àddina dañ loo xamante ni bu ci seen ñàkk jàmm ajoo mën naa wàll si mën naa wàll si baax sëriñ fallu moom sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo mas naa yor xasida ak asmaaw ahli badrin ñëw ci sëriñ bi mu ni ko loolu du xasida gone siiw na muy lu am solo jërëjëf kon euh, waxtu wi yaakaar naa sëñ Lamine dab nañu euh, ñu yemal ko foofu bokk yi kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen dox dig daje ba beneen jotaay ak beneen xasida wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu أوس وخيبا ظنون حسدي أستغفر الله